mu ne um bàkku ci lan nee na ma ne ko xam-xam bu bari rek nee na mu ne ma um ñun de liñ xam ko néew dem na siiw mën koo jëfe nee na ma ne tot toll ni Moussa sànq leen nee na jataay bi day lu mat juróom fukki aalima ngi fi waaye kenn ku ci nekk da ngay yuur noo xool noo dul sawewu tànk fekk sëñ Bamba ba mu waxee loolu ba noppi dafa ne bërét dem si waroon nga indi malaan lal ko teg ceeb téere ubbi ko di yër nee na ulama yi si jotaay bi yëpp ku ci nekk da ngaa sëgg yu wóor nee na man may yuqoonu di yël di jéem a yër téere waaye loo xaj xañu xamul ci ngañ xaw ma ko ci mu ni ko bu ñu dindee bu ñu tegeen fee baati nam bañ koo seet ci melow doomu aadamaam nii rek ci tabeem ci laabiiram ci woyafam ci yërmandeem ci mbaaxam nee ñu tubaab yi sax xam nañ ni moo gën ci àdduna ci jëflanteem ak ak doomu aadama yi jëflante boo xam ne ci moom lañ ko njëkk a gise fii ci doxinam ci toog yinam du toog mukk te jubluwul penku te xam ngeen ne toog jublu penku jaamu yàlla la du jëflante nit mukk lu dul koo xam doxee dafa yéem ko yéem koo xam ne dootoo ko yemaleeg mbindee fii naka noonu bu doxee ba taxaw oo taxawaayam bu xasee ba ne bërëb jëm ci boroomam muy jàkka ji mu jëm dara du ko mën a taxaw geesu gannaawam jigéen jooju ma nekk li woon ci bi muy wax naan ca lan xame ne du dóore nekk la ne ñaareelu yoonam bi mu ko gisee boobu mu ngi njaareem nee na mu jëm ca jumaa ja nee na ñi mu mu ngi waaxu ñee ñi mu àndal a ngi daw di cal moom muy waaxu nee na karbat bi mu sol nee na benn xale dajee moom ba dëgg ci karbat bi nee na ba mu summiku waaye geesuwul walbatikul dafa wii rek nee na taalibe bi for karbat wa gëdd xale ba daal dem teg ko ci kanamam waaye dafa wii rek geesuwul gannaawam xamul ndax karbat summiku ne wala karbat summikuwul ndax mu ngi jëm ci borom tabaraka wa taala naka noonu la ko suñu borom jox woon waqaar ak hëyba waxtu bu ko neexoon te indiwul melaw yërmande yi boo ko gisee nga gis gaynde ña la koy gën a ragloo di boole woon mbooleem xeeti mat mat ci xalaatu xol lu ñu ko mën a ak mat ci maanaa ak mat ci jëmm ak mat ci jëf mat ci jikko ak mat ci lépp daf daan toog di waare ay baatam day mel ci xol yi ni waame mel ci suuf su mar day xëcc ci xol yi ba ñu set mu dugal ci xekkam waxtu woo ko gisee da nga ko sopp cofeel goo xam ne boo jógee moom da nga toog diir bu gën a yàgg sa xel ci moom dong lay nekk ndax dafa doon dund xol yi xol yi texe yépp dafa doon seen dund waxtu wu ko gisee dootuñu néeg a tàggoog moom daf fekkoon ne ñaar moo lëndëmal kaawtee fi adduna bi nu nekk mu di sababiya ak aada nit lu mu tàmm miin ak lu ñëw ci moom ci melow doomu aadama miin gum ko miin a gis ak melow doomu aadama mi melo dana tax na mu yéeme wàññiku ci xolam sëñ Tuubaa bokku ci woon naka noonu sabab sabab it nit ñi sa sabab te sabab amul ba tey kiiraay la lu dox diggante doomu aadama ak yàlla ba tax àggu ci loolu maanal inna aradna lamaanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha linsaanu innahu kaana zaluman jahulan suñu boroom ba nga xamee ne xamlu amaanati diini gaaral na ko montagne yi ak asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yi ñu ragal dañoo xam yàlla lu tax xam ñu xam yàlla ñoom dañoo xamul sabab xamuñu lu ñuy sàkku xamuñu ne boo xiifee boo lekkee regg xamuñu ne boo maree boo naanee mandi xamuñu ne buñ la dóoree mu metti xamuñu ne la boo bëggee wërsëg da ngay sabablu yooyu yëpp nekkul seen diggante ak seen borom loolu tax ñu xam yàlla directement xam googu ñu xam yàlla moo tax ñu ragal ko ba ñu ne ñoo yor xam amaanatu diini doomu aadama mi nga xam ne diggante sabab ak aada dox na digganteem ak yàlla di kiiraay lu dox digganteem ak boromam ba bu ñàkkee du seet lu dul sabab lu wala ñaani waxtu mu sonnee dara du ne ci xelam lu dul nopp lu mooy waral coono bi dañ waxtu mu gisee luy lore daw la defee ne moo ko ki nga xam ne léegi duut de xalaat ba dem ci yàlla loolu lépp dox na digganteem ak yàlla di ay kiiraay réere googu mu réere yàlla tax na mu nangu moom amaanatu diini ba suñu borom ne inna inna linsaana la zalumun jahumun innahu kaana la zalumun jahulan astafirullah ñooñu nag ñoom melewuñu noonu ndax ñooñu xam gi ñu xam yàlla li ñu amewul ruug yu nooy yépp teewul ñu ngi sàbbaal suñu borom fi ñu toll alquran nee na wa in min cheyin illa yusabixu bi hamdi walakin la tafqahuna tasbixahum cheikh abdulwahab charani nee na bis bi nga xamee ne ci la njëkk a amee fatx nee na dafa julli ci jàkka ji takkusaan bay génn kenuy jàkka ji keno bu mu romb dégg ni muy sabbaar mu génn lépp lu mu daje rek dégg ni loolu sabbaar ba mu dégg jën yi ca géej ga nañuy sabbaar ba nga xam ne miinagul xaal boobu sabbaay yi nga xam ne lépp lu mu jot butti bépp ti bala koo lekk dégg ni muy sabba buñ taajee ndab li mu dégg ni muy sabba bu maree dégg ni mar wi sabba buy naan dégg ni ndox mi ni muy jaare ci putam ba ni muy sabba bu muy àgg ci biiram mu ñaan suñu borom dindi loolu ndax mu am mu am noppalaay bi gane ko tuuti mu nopp suñu borom may ko ko naka noonu sëñ bi daf daan seet muy ci alxuraan muy ci jëf muy ci lépp lu yàlla bind béréb yi nga xam ne moom la doomu aadama mën a waaroo mu di ca xëcc xelam ak xolam di ko ca waar muy jeqi kaawteef
ma wax tuuti nit ñi ndax ñu xam ne waxtaan bi dañ continuer tuuti ci kanam
xéewal gi gën a màgg moo di ngëm al iman gannaaw bu ngëm a- amee dara lu gën a mag ragal yàlla amul wallahi gannaawam dëddu àdduna ni ñu ko waxee woon ak xam yàlla ñu ne lilladina kafaru xayaat dunya wasxaruna min alladina amanu walladina taqaw fawqahum yawma alqiyama wallahu yarzuqu man yashaau bi xayri xisaab ngir laa diine mbindeef yi ak ngir matal xam gi ñu xam diine ak xam gi ñu xam yàlla ah jox murit yi ak ñi dul murit tey jullit nekk ci réew mi lépp lu ñu aajowoo ci lu leen di jëriñ yawmal qiyam di leen di jëriñ ci seen bàmmeel
laaj yi moo xam ci mbirum seen diine wala ci seen mbirum àdduna ci mbirum laaj yi xam ak mucc dañu commencé laaj yi waaw kañ fa ba tey kon ba tey ban mën nañoo taxaw lu fii déglu laaj yi euh, ak it sax xanaa conférence bi moom buñ ko toppee moom dana gudd moom lool lool waaye nag laaj yi itam ci conférence bi la bokk kon nu taxaw lu eh, déglu laaj yi rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërë ngeen jëf ci déglu bi dafay laaj mu ne gannaaw bu mu nuyoo Serigne Sam mu ne waaw
waaw nii nii laaj yi dégg ni waaw baax dañ ko déglu sax ku ñuy wax Ibrahima Sall mu ne gannaaw bu mu nuyoo Serigne Sam ba noppi mu ne damay laaj ba xam yow Serigne Sam ana ban place nga teg Cheikh Amadou Bamba ci biir wàllu yi maanaam Cheikh Amadou Bamba ban martaba lañ ko war a mën a tuddee ci biir ñi nga xam ne nit yàlla lañ foo ko ciy teg kooku moom la laaj Ibrahima Sall ma keneen koo xam ne dafay laaj ne gannaaw bu mu nuyoo sëñ Sam mi ngi laaj baatu xidma bi nga xam ne rek ñun noté ko gën ko gàttal Serigne Touba daf koy faral di wax bu bu lu bare bare bare ci ay andi benn kaay
ay ay ay ay mbindam baat boobu daal bëgg nañoo xam euh, lu mu doon dëgg dëgg dëgg ndax bari na fi ñu koy tudd bu baax a baax Euh, ak it bëgg nañu ku leen leeral itam bëgg na ku leeral itam moom kii bind lii nee na ñi aju ci moom ñeenti xaaj lañu ah ñi nga xam ne dañoo boole jaamu yàlla ak liggéey kooku it bëgg nañu gën ko ko leeral ñu boole jaamu yàlla ak liggéey ñooñu nee na bëgg na ko ko leeral kooku nag bindul turam dafa wax ne loolu la bëgg ko ko wax hmm. Euh, kii ci la Euh, kii Mor Modou Mamoun Bousso euh, moom it dafay laaj nee na laaj yi nekk dama ko bàngoor
maanaam euh, ñi jaamu yàlla nekk taalibe ba noppi boole jaamu yàlla ak liggéeyal sëñ Tuubaa loolu la bëgg mu gën a leer mu gën ko leer nee na waa jooju
jëmmi jëmmi bànn xidma bi ñu ci am sànq répété moom mooy lan waaw moom la ñu wax hmm. waaw ñi nga xam ne ñoo aju ci moom xidma boobu mu tudd ne ku may liggéeyal liggéeyal boobu la bëgg ku ko leeral liggéey bi nee nañ liggéey boobu la bëgg ku leen ko leeral liggéey bi nga xam ne ku aju ci moom ci ngay jaar ba dem àjjana ki Modou Mamoun Bousso la mu ne moom it day sant say saam waaye dafa bëgg ku ko gën a saraal ku ko gën a leeralal maana ak tamkiin tamkiin mu gën a leer la bëgg ñu gën ko leeral kii Moustapha Lo moom it nee na ndax li mu njëkk a wax mooy ndax mu jaddit dana gisanteeg boroomam moom mooy laaj bi mu njëkk a laaj ndax mu jaddit dana gis yàlla nii ba mooy laaj bu njëkk bi nee na it ndax gannaaw boo xamee ni Cheikh Ahmadou Bamba nekk mu mu jaddit ndax beneen mu jaddit dana am gannaawam wala déet waaw kii Modou Asta Diop la tudd Euh, moom li ko xaw a jaaxal nee na mooy nu nit di jaamoo yàlla ci biir bàmmeel da ko dégg ci conférence bi julli yooyu nga xam ne nit ki dana faatu ba noppi di ko defaat ci biir bàmmeelam nee na loolu bëgg na ko ko gën a leeral Euh, nee na it kii mu ngi tudd Murtala Amar nee na moom li muy laaj mooy ñaari mujaddid danañ fekkante ci benn jamono wala déet ñoom ñaar ñaari mujaddid waaw loolu lay laaj kii Amadou Samb euh, nee moom li muy laaj ndax képp koo xam ne nekk nga seexul murabbi itam di nga mën a nekk seexul muraqi kuy tarbiye itam da nga mën a yóbbu nit ci yàlla ndax da nga mën- nit dina mën a boole ñaar yëpp ak it lan moo mooy différence maanaam lan moo teqale diggante seexul murabbi ak seexul murab muraqi ak kenn ku ci nekk lan lay lay xàmmee ak sa morom. Hmm. kii Modou Mbacke si. nee na ndax gannaaw bu nuyoo sëñ Sam nee na ndax tarbiya bi sëñ Touba doon tarbiya ay taalibeem amoon na lu jiitu sëñ Touba wala déet ndax euh, yoonu tarbiya wii muy doxal ndax amoon na fi ñu ko doon doxal wala déet Euh, kii mu ngi tudd kookan la kii sëñ sëriñ Cheikh Amar wala ndax euh,
Beaucoup que qui vient perdre ses temps, à ce moment-là, or, ils ne comprennent pas, ils- peut-être lui et euh, ceux qui sont dans les mêmes conditions que lui me suivront, euh, nous pensons que c'est un peu inutile, et puis c'est euh, perdre du temps par rapport aux autres. Donc je l'invite à venir là où je suis, on euh, prendra, on reprendra ces questions, ce qui m'a été demandé, je pense que c'est très sage. Question bi ci topp mooy lan continuer kon merci da nga ma wax rek ne kii dama ne Cheikh Ahmadou Bamba yéen a ngi may dégg kii dafay laaj loo xam ne kenn du ko ko wax ci àdduna mooy sëñ Touba fan la maqaamam toll ci diggante maqaamu gaa yi yàlla yi man nag mën naa laa tontoo ni nga xam ne noonu la waxal bopp ni mu tuddee bopp mooy Abdullahi Abdullahi la sëñ Touba tànn gis ngeen ne même yonante yi ñi ci suñu borom tagg Abdullahi leen wax ni'mal abdu te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la gënoon a soppi ci tur yëpp sëñ Tuba moom la tànn Abdullahi nag lu yaatu la maqaama la boo xam ne kenn mënu koo génn sëñ Tuba mu nga fa. li ci des wa yaxluqu ma la ta'lamuun alquran la suñu borom ko def suñu borom dafay bind loo xam ne doomu aadama yi ci des xamuñu ko pour nag nga may sujet diw ne diw sangam ci martaba sangam la toll fokk nga weesu martaba boobu ndax dañu wax ne gaa yi yàlla yi dañoo yenu seen i ndab ub nañ ko wala ubuñu ko ku leen sutul ba mën leen a njool xool li ci seen ndab du ne nangam fii béréb sangam la toll nangam a nekk ci ndabam nangam na nekk ci ndabam kon nag nit mbindeef mu taxaw fii ne la sëñ Touba fi béréb sangam la toll wuute naag man xalaat man ñemewu ma ko du ma ko wax ndax xaw ma ko sëñ Touba buñ nee nit bala nga ko mën a suusé da nga koy da nga koy féete kaw yaakaar naa ne yonent bee ko mën a suusé xidma mu ne xitma lu ci sëñ bi jublu ak lu ci liggéey.
xidma li ko sëñ bi wax bare na ndax xidma am na xidmaam boo xam ne daf koy dafay liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wasallam ni mu koy liggéeyale xam ngeen ne suñu borom moo ko tànn bi nga xamee ne seet na xol yépp xolam gën cee sopp yonante bi sallallahu alayhi wasallam mu jagleele ko liggéeyal yonante bi ba tax mu nekk ki gën a féete kaw ci ñu liggéeyal yonante bi ñëpp xam ngeen ne saaba yi am na si ñu ko daan tagg mais waaye nee na mulkul alil baqi al qadim ja'alani asna xadim liman law fadlun yadum wasaanani fil qidami kon suñu borom tànn na ko muy ci ki gën a féete kaw ci ñi liggéeyal yonent bi comme ni mu ko waxee wax na mu fi madhihi jaawastu kaaban wa xastaana ci tagg yonent bi salaa sallam nee na romb na ku ñuy xastaan ibnu saabit ci saaba yi la woon ak ku ñuy wax Kaab ibn Zuhayr ibn Abi Sulman ko ñu mu ne weesu leen léegi nag xidma bu ñu ko waxee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam sëñ Tuubaa mi ngi koy liggéeyal ci baatin ak ci saahir mi ngi koy liggéeyal ci saahir ci tagg mi ngi koy liggéeyal ci baatin loo xam ne lot nañ ci xam ko wala di ko wax gannaaw baatu xidma ci boppam mu ngi tekki liggéeyal liggéeyal maanaam bi muy am mu mu ngi mu ngi revêtir maanaam mu ngi aju ci contexte bi ki ñuy liggéeyal ak ki koy liggéeyal ci la sens bi aju kon nag xidma mën naa am junni sens ci kem ki nga xam ne mooy def xidma bi ak ki mu koy jëmale ci moom wax naa la ne bu dee sëñ Tuubaa ci yonent bi tagg ko mooy liggéey bi ci baatin ci saayir liggéey bi ci baatin mënuñu koo xam bu fekkee ne nag taalibe buy liggéeyal sëriñam la junni forme liggéey am na mën na nekk ci toolam di bay mën na nekk di ko wàcceel ay kaamil jóge na fi mu di ko wàcceel ay kaamil di ko jox addiye di ziare bérébam di ko bale di ko cuuraay di ko wis di ko lañ fonk képp koo xam ne aju nga ci aju nga ci moom wala képp koo xam ne askanu nga ci moom wala képp koo xam ne daraam nga teg ko ci place bi nga xam ne moom wax dañ ne wala du cheikh ka cheikh naka noonu zawjatu cheikh ka cheikh lépp cheikh ka cheikh la képp ki nga li doy ki aji liggéey ji moo di na yéeneem doy innama al amalu binniyat bu yéeneem sellee mu nam ci jëmmi yàlla xam ne kii wasilaam la digganteem ak boromam kon war na ko fonk ndax lu dox diggante nit ak yàlla li toll na yàlla lu cay àggale nit fa mu yam mënee su ko jox daraja ju ca àgg wax naa ne mënuñoo jox xaqam sëriñ bi kenn ku mu mën doon nag nga xam ne dafa dox sa diggante ak sëriñ bi moo xam doomam la wala sëriñ wala nangamam la wala ku mu boolee yow la yaa ngi ko war a gisee ni nga war a gise sëriñ bi waruloo ko xoolee si bët yi nga xam ne waxam war nga caa teg dara wala nga di ko dingat wala nga ko examiner wala nga di ko critiquer war nga ko sa xol nangu léppam se- sëriñ bi dafa wax ne ko kun yede la de cheikh ka maytin ka mawt ka maytin wudaa bayna yedee xaasilihi tantafia soo nekkee ci kanam sëriñ bi ni nga xam ne néew bu ñu tëral ci kanam ki koy sang mu di ko walbati nam ko soobee boo ko defee da nga jëriñu maanaam tamkin maanaam tamkin moo ci topp tamkin dan naqare misaal ndax faawu nit ki initié maanaam nit ki xam as ak lëf ci tasawuf mën nañoo wax rek wax joo xam ne xëy na da ngeen ci mën a am tuuti idée waaye jaar-jaaru gaa yi yàlla yi ñi li tàmbali moo di suluk salik mooy soobu yoon bi soobu yoon moo di nit ki nga xam ne seet na ba xam ne suñu borom tabaraka wa taala nee na lu dara ay yax si bu lintaan an yutraka sudan doomu aadama bi am na juróomi jaar-jaar yoo xam ne dana ca jaar gannaaw bu ruuxam rotee te jaar-jaar yooyu bu ca tolloo dootu tal dara dana fàtte képp ku yàlla bindoon ba moom ci boppam sax dana defe ne moom rek la yàlla bindoon ndax toppatoo bu ñu koy toppatoo enquête bu ñu koy enquête ak contrôlé bu ñu koy contrôlé mu seet loolu xam mbugalu bàmmeel ak trayu bàmmeel la cay mu muccal nit na mu jafee xool génn ko roo xool jéggi siraat xool taxawaay saa keroog bis boobu nga xam ne yonent yëpp dañ naan nafsi nafsi kama ni sëñ bi waxee ne yaqulu kulluhum nafsi wa ahmadun dafa ne yawma alqiyamati taati ruslu qatibatan wal anbiya'u lahu wal kullu qad wakima yaqulu kulluhum nafsi wa ahmadun la yaqulu ummati yarham khayra man rahima rahima mu ni keroog yomal xiyaam yonent yëpp ak yeneen mbindeef yëpp daañu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi amee njàqare xol boo xam ne bii da ngaa yaakaar mu faju ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne moom rek mooy ki nga xam ne daf naan suñu borom yërëmal sama xeet bi yooyu yëpp nga xalaat ko xam ne lott nga ci nga ne naa seeti ku ma ci tane koo xam ne dana mën a jaarale yoon woo xam ne bu keroogee du ma jàq du ma jaaxle te bu keroogee danaa mucc danaa mucc ci bu ñuy génneeg ruum méttiwaay gi muy métti nga xam ne ni ko yonent bi misaale mel ne junniy jaasi yu dalandoo benn bu ci nekk métti itam nga yëg ko na nga ko war a yëg ni ko kaab waxee mel ne caro garab boo xam ne dafa fees dell ci dëkk mu nekk ci sa biir ba nekk ci sa bépp cër sa biir yóor gi sa bët yi sa nopp yi sa biir bi sa siddi bi sa xol bi sa res bi sa yëpp nekk ci ba ci sa yeel yi sa yax yi dugg fépp ba nga xam ne bu ci nekk jàpp na place am ba lonku ponkal mu gën a am doole bif ko mu génn nga càmpoor yi topp ci nga xam ne moo gën a metti loolu nga xalaat loolu ak ni muy yàggee ak bis ba nu muy génn nga seet bis yowmal xiyaam boo demee boo njëkkee dugg ci bàmmeel bar sax ci boppam nan nga fay dundee ak nan nga fay nekkee ba ba keroog saa di taxaw nga xam ne wextanu dee ci boppam bi nga xamee ne Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam daf daan dekkal néew yi am benn waay bu koy di nga ne ko ñii ngay dekkal ba ñu dee dafa yàggul ñëwal ma woon la waa joo xam ne ba mu dee léegi naa ngi mi junni at la boo ko dekkalee ma xam ne yaa mën ci àdduna ba mu dikkee woon ko bàmmeelu doomu yonte yàlla noox ji waxtaan ba mu ko ne ko dekkalal kii ma xam ne nag yaa fi mën ba mu ne ko um bi ismillahi jugal ci ndigalal yàlla ba mu ne bërét bàmmeel bi xar mu jóg taxaw dafa bay jaaw mu ne ko lu tax nga bay jaaw sax ba ngay ba ngay dee xalel bu ndangoon mu ne dama dégg sa woote bi ma defee ne saa taxaw ma tiit ba bay jaaw mu ne ko ne waaw dee na mu mel ndax yow ku ragaloon dee nga mu ne dee daal ni mu mel gis nga ba ma tëddee feeg léegi ñaata at la ñu ne ko junni at ak nangam ak nangam mu ne seede leen ne booba ba léegi waxtanu dee dañagul ci man nga xam ne yonte yàlla Moussa ni mu ragale woon dee ba ñaan suñu borom fan bu gudd mu may ko na nga fekk yëpp kuy nga fab sa ñaari loxo teg ko ci digg gannaaw gi ba jañax ko ba ca calgeen ba bépp karaw boo xam xam ne sa loxo laal na ko wala mu yëkkati ko danaa la ko may ci at loolu doyu ko mu ragal dee ragal dee ragal dee ba nga xam ne malaayika yi duñ koy rey dafa leen a bi ñuy jël si room dafa leen a talaata ñu daw bi nga xamee ne jot nañu digal ak suñu borom ba suñu borom yar ko bi mu dikkee bi ñu fabee room bi ñu ko dugalee ci bàmmeel bi dañ ko nax ba mu dugg bi nga xamee ne gannaaw gi ñi toppoon ci moom gis nañ ko ci baatin bi ñu ko laajee nan la deemel mu ne mi ngi kashaatin tuslax wa hiya hayyatun mu ngi mel ne gàtt bu ñuy fees muy dund noonu la deemete loolu yëpp nga xalaat ko sa bopp doyetu la nga amum tiit amuk jaaxle bàyyi àdduna soobu nag yoonu yàlla jox sa bopp yàlla mel ne soldat boo xam ne dafa dugg ci armée bi engagé loolu mooy salik mooy murid noonu la meloo murid di mel murid sadiq nga dugg ci nag bi nga xamee ne nag yow nekk nga kooku nga xam ne yow bàyyi nga lépp wax nga ne bàyyi nga àdduna jëfe nga aay ji suñu borom ne inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum digression yi bari na ba nga xam ne fàtt naa sax question bi nan la waxee jéggal ma nan la waxee tamkiin am kooku mooy mooy salik mooy ki sooba soobu yoon wi yoon wi nag dinañ ci soobu ñii daañu ko dox ba seen dund jeex duñu àgg duñu xaajale ñii daañu ko dox ci fanweeri at ñii daañu ko dox ci ñeen fukki at ñii dox ko ci ñaar fukki at ñii dox ko ci fukki at ñii dox ko juróomi at ba ñii dox ko ci ñaari at da ngeen xam ne ku ñuy wax rabiatul adawiya biñ koy jaay ca marché ba mu nekk jaam bu jigéen ba ñu jënd ko mu soobu yoonu tasawuf at ma dellu siwul ñaari yoon adduna bépp di ko ziyaare nga xam ne am na tamkiin àgg na ci suñu borom naka noonu ibrahima ibnu adham nga xam ne dafa nekkoon ku bokk ci buur yi naka noonu fóotu yi lu mu ne iyaab nga xam ne bandi la woon ku peur de route daf daan dog jaar ci dog yoon yi di addu kalpe waxtu mu tuubee ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñi ñetti at la ñu def dal di àgg ci yàlla ñii ñaari at ñii juróom ñetti at ñii fukki at cheikh abou yazid albustami fokkee sax bu ma fekkee naa ko ci lim du jeex mukk tey cheikh ahmadou bamba nee na tawaytu tariqa alqawm waqta imtidaihi waliqat qadal xaajaati bi rawdi wal basti mi nga xam ne suñu borom daf koo taxañal yoon wi nee na man waxtu woo xamee ne maa ngi tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne suñu borom daf ma koo jagleel defal ma ci lu mu defalul keneen waxtu wu ma koy tagg damay taxañ yoonu gaa yu baax yi yoon wi ñu jaar man dama koy jaar ci diir bu gàtt gàtt gàtt te suñu borom fajal na ma sama aajo yëpp yi nga xam ne danaa ko aajo woo ci yoon yi ba àgg sama borom ba àgg ci fotaaw léegi tam kii nii la demee dañu wax ne ilmul yaqin ak xaqul yaqin ak aynul yaqin ñett yooyu la ilmul yaqin mooy ni nga xamee ne suukar dafa dafa saf dafa neex ni nga xamee ne safara dafa tàng ñu wax la meloy suukar meloy safara ak meloy lépp lu mu doon wax la melow géej gi ni mu mel te waaye mosuloo see gis lenn nga xam kooku mooy ilmul yaqin xam nga ko ba wóolu nga ko ndax ki la ko wax moom wóolu nga ko xam nga ne xam na ko xam nga gën a mat te li mu wax dara du ci dañ kooku mu yaa ngi toll ci ilmul yaqin nga dem ba nag àgg ci xaqul yaqin mooy nga dem ba tiim safara wi teg ci sa loxo mu lakk la nga xool ni mu leere ak ni muy leere béréb bi nga def ci dara mu tàkkal ko naka noonu itam nga dem ci géej gi tànk ci loo xam ne mos ko xam li mu saf nga dugg ci ba génn noonu nga ko xamee nga xam ne yaa gën a xam ki xamoon melo yi te dañ ko ko wax rek te àggu ci nga xam ne kooku moo toll ci ilmul yaqini yaa ngi ci kon yow aynul yaqini xaqul yaqini di ki nga xam ne dafa dañ koo taxañ sànni ko ci sébb bi safara wi féete ko kaw féete ko suuf féete ko ndeyjoor féete ko gannaaw féete ko ndeyjoor ak càmmooñ gisatul dara lu dul safara mel na bi ñu ko sànnee ci géej gi gisatul lu dul ndox ndox ko féete ci wet gu nekk xamatul lu dul ndox luñ ko laaj buñ ko ne na nga tudd mu ne ndox buñ ko ne ci loo nekk mu ne ndox yaay kan mu ne maay ndox lépp nga xam ne xelam dem na ndox rek a fi nekk ki nga xam ne àgg na foofu ci yàlla mooy ki nekk ci fanaawu fanaawu nag boo ca nekkee nga xam ne xamatoo dara boo ca yàggee ba tàmm ko ba tàmm ko ba tàmm ko ba tàmm ko ba miin ko ba nga xam ne mel na ne kër gi nga dëkk nga xam ne dootu la tee waxtaan dootu la tee lekk dootu la naan tee naan dootu la tax tee gëmmentu dootu la yàqal dara nga xam ne tam ndax tam gi ko tàmm yaa toll ci tamkiin nga xam ne boo nekkee ci tamkiin léegi wees nga xëybatu ak lums dootoo ko defati nga xam ne wees nga xaal ndax nekkatoo ci tëlwin yaa ngi ci tamkiin tëlwin ak tamkiin tëlwin mooy nga xam ne xaal yi dañ lay jottaliku di la jox seeni melo nga xam ne léeg-léeg da ngay amee melo woo xam ne daanaka melo yàlla la loo ne amal mu am loo ne defal nii mu def koo jaxañ pour mu alku mu alku koo bëgg aajoom faju mu aju waaye léeg-léeg boo nga génn ca dikkat yi melo woo xam ne lu dul sa xam-xam doo ko defe ak saragal yàlla gi waaye yeneen yi ci lépp xaal boobu dafay taxaliko ak yow ba nga xam ne dootoo xamante dara ci mbirum suñu borom nga dem beneen bis mu walbatiku beneen xaal dikkal la ba ci ni xaal maqamatul yaqin ak yeneen xaal yépp noonu lay demee boo demee nag ba weesu xaal xaal dootu la dikkal ni nga mel noonu ngay mel nga xam ne yaa ngi tàmm nekk bi ngay nekk ca pays ba ba xam ne yaa ngi mel ne ni ngay nekk ci sa kër comme li ma waxoon loolu mooy tamkin ci gàttal noonu laa la ci mën a wax ndax gannaaw sëñ Touba mu jaddi gën a ñëw loolu itam laaj nga ma loo xam ne yàlla rek ko xam ndax ëllëg moom ëllëg yàlla ëllëg moom ëllëg yàlla yàlla xam la muy defi ëllëg ah lenn nag rek mën nañ ko waat sëñ Touba gannaaw ne ne ilay yaqaadallahu ma lam yakun wala yakun abadan li mumkini li ko yàlla defal moom moom wax na ne mësu leen am mbi def mësu koo am te dina leen dootu ko am loolu moom moonu leer waaye nag la yàlla def ëllëg ndax dana sàkk xutbul xawsu ndax dana sàkk fard ndax fard ci boppam li xutbul xaw si di kawe kawe far doo ko ëpp doole ndax wilaaya fi ci xutbul xaw si toll mooy fi xol toll ci jëmm xam nga ne xol bopp ko féete kaw ndax xutbul xaw si ci boppam li muy amee amee sañ-sañ baat bi la amee ak sañ-sañ bi waaye fard mooy ki nga xam ne suñu borom daf koo def ngir boppam rek nga xam ne yahi mu fii jalaalillaahi nga xam ne day fii ci màggug yàlla gi xamul dara lu dul yàlla xamul malaaka xamul yonent xamul waliyu xamul xutbul xaw si xamul dara lu dul yàlla nga xam ne day naan ci leer yàlla di mar ci leer yàlla di lekk ci leer yàlla di ci gindiku lépp lu muy def ci leer yàlla la koy def al afradu min al basir moom al aluna min al malaikati ñooyam xamuñu xutbul xaw xamuñu dara al aluna min al malaikati mooy malaika yi gën a kawe nga xam ne suñu borom digalu leen woon ñu su jeet ci aadama moo tax ñu ne iblis ah astakbarta am kunta min al alina da nga rëy rëylu wala da ngaa defe ne ci aluna yi nga bokk aluna yooyu nag basir yi nga xam ne ñoom la ñu xeetoon ci mbindeef yi dañuy nit ñoo xam ne dañoo ñëw gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam dootu ñu mën a nekk yonent waaye dañuy amee maqaamam yonent loolu nag bu fekkee ne nit mën na ko yàlla waxtu ko soobee la koy def waxtu soobee waxtu soobee badal daa ulama yi rek d'accord nañ ci moom ahlul aqiqa ne ab daal yi juróom-ñaar la ñu doon te du manque mukk seen lim lim nañu ci xeeti wàll yi ñoo xam ne du ñu manque waxtu wu nekk dañuy am waxtu wu xutbul xaw bi fi jógee kenn ci ab daal yi la ñuy fab mu remplacé ko ab daal yi ñu fab ci aw ci ci awtaat yi awtaat yi ñu fab ci ab daal yi remplacé awtaat ñu bokk ci nuqab nuqabaawu fab ci remplacé ko ba ba ñuy àgg nga xam ne lim bi du manque mukk ni ma waxoon sànq ne nit dana nit ñi daañu dem ba ci seenu bon ak seenu sàggan ak seenu jublu adduna dootu ñee yoo xam leen lim bi du manqué waaye daañu leen umpale ba duñu leen xam yooyu mooy li nga xam ne ulama yi d'accord nañ ci ba wax nañ ko ak ahlul haqiqa moom lu am la loo xam ne ku nekk mën ngaa dogu ci ne du du du képp ku gëm haqiqa wala nga gëm ñooñu haqiqa da nga saxal ne lii moom lu am la du mën a ñàkk amaa nag mujaddid dana ñëwati wala du ñëwati ulama yi saxaluñ ci dara nee ñu rek yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi waxoon na ne ci bépp téeméeru at buy tàmbali suñu borom dana yebal kuy beesal mbiri diine ji xamuñu nag fu muy jóge xamuñu kan lay doon xamuñu nan lay beesale loolu rek moom lañ ci mën a wax ci gàttal ci biir julli ci bàmmeel xam ngeen ne maqaam mu kawee kawee la waaye xam ngeen ne ruux ci boppam lu ama am doole la nit ki bu fi jógee xam ngeen ne ruux wax naa lu bara man ñetti yoon ci conférence ne ruux rapport am ak yaram am nañ juróomi rapport xam ngeen ne ruux mooy dundal yaram du nag lu nécessaire lu mun la ñàkk la ruux na jege yaram mën na ko sori mën na koo jege mën na koo féete fi mën na mën na demee nii mën na demee nii misaal nañu lu bari ci loo xam ngeen ne ruu ñaar ruu alxaywaan yi taxul may wax ruu al maanaam al aadami yu moom laay wax maanaam waxuma souffle vital bu nga xam ne dañu wax ne dégg nga coole la joo xam ne mooy dundal waaye esprit li ñuy wax maanaam ruuxul aadami xali ñu ne ruux am na ñett juróomi rapport digganteem ak nit ki ndax nit ki bu nekkee ci biiru ndeyam xam ngeen ne du dund yi nit ñi dund du nekk ci mbir yi nit ñi nekk beneen façon mu dundin woo xam ne yàlla ci yàlla borom ci boppam moo ko xam ndax ci loolu mu ngi aju ci rapport ba nga xam ne moom la ruu maanaam diggaale gi ruu gi diggaale ak yaram wi waaye bu juddoo ñëw ci àdduna mu mel ne nit ñi mu ngi dund dunduk àdduna gi boo waxee mu dégg ko boo loo ko woon mu gis ko bu xiifee lekk bu maree naan bu amee soxla jóg dem féet lajjiwul melo melo woowu nga xam ne day feebar diwéer ak yooyu yëpp nga xam ne beneen rapport diggante ruu ak yaram la bu ca jógee ba dee dem ba sax beneen rapport nga xam ne ci misaal su ruu ga nekkoon comme ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne ruu yi way tax yi ñu ngi ci joqi ay picc yu wert yiy far ca àjjana bu nekkee foofa itam mu ci nit ki nekk ci bàmmeel bi ñu suul ko mu mel ne seen diggante am na ittisaal jokk boo xam ne dafa mel ne ci misaal su fiil jàppoon ca ruuga fa mu nekk jàpp ci bàmmeel ba nga xam ne lu muy yëg muy mbugal muy xéewal lu mu yëg ci biir bàmmeel bi la koy yëgee donte bàmmeel bi nit ki ràpp na ba dóoma fi nekk wala suufas kese wala yàqi kese itam du tee mi ngi yëg la nga xam ne mu ngi koy ruugaan koy yëg waaye mi ngi koy yëgee fi nga xam ne fi la bàmmeel bi nekk ba keroog saa taxaw rapport boobu changé roo amati beneen diggaale ak yaram yaram dundaat mel na meloon ba raw na meloon bi dund ci ci àdduna nga xam ne alxayaatu gannaaw alxayaatul barsaxi alxayaatul uxrawiyee bu ñëwee moo gën a yéeme gën a mat gën a dëgër gën a sotti alxayaatu dunya yooyu gën mu doon dund ci àdduna bu keroogee nag ci yooyu loolu la ñuy attee jaam yi ci rapport boobu lay duggee àjjana ci lay duggee safara ci lay mën a dékkoo xéewal gu màgg googu ci lay mën a dékkoo itam mugal mu tiis moomu ci loolu roo gi wax nañ ne barsax mu ni mu ni mu bindoo dafa mel ne peñu suukar na nga gën a jëmee kaw cat li gën a sew na mu gën a jëmee suuf mu yaatu gépp ruu gu wat gu rot maanaam ku dee am na fu muy tag am na place am ca barsax la muy jëfee ca barsax ba ràññante maanaam nekk gam nekk ca barsax maanaam contradiction weddantewul ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam misaale ci zahir ci maanaam ci batin ci ne muy nekk ci ropp picc moomu nga xam ne dafa wert di far ci diri àjjana yi léegi ruu googu bu fekkee ne ci kattanam ak ci xam yàllaam xam gi mu xam yàlla nga xam ne bëgg gi mu bëgg yàlla mënu la muñ mukk toog diir bu toll ne ba ba saa di taxaw te jaamul yàlla nga xam ne jaamu yàlla ga muy jaamu dara yëbalu ko ci du caagi ne yoon buñ ko teg nga xam ne bu deful li am bakkaar wala yoon muy topp wala di màggal yàlla wala dara tabi ala ci moom nga xam ne ñàkk koo mën a ñàkk koo tëll ni nga xam ne boo xiifee bu yàggee rek day mujj nga fexe ba lekk ak noo mën a lekkee wala nga dee nga xam ne ruu boobu ci cofeel gi mu am ci yàlla mooy jëf jëf joo xam ne mooy jaamu jaamu lañ ko tuddee kooka dafay àgg ci dayo boo xam ne dootu mën a toog mukk ne mu ngi fii ci ci barsaq des fi yàlla nekkul nekkatul di ko jaamu ndax daañu wax sax am na sax wali bu ne bu demoon àjjana di fa jaamu suñu borom bu nekkul loo xam ne lii lu mu tey la day melo woo xam ne suñu borom daf ko mel kattan la gu mu am ak maanaam kenn mënul wax ne diggante yàlla ak mu def am na parenté waaye diggante mag al malaul ala ak xadra ba dafa am parenté boo xam ne du ko fàtte mukk te day des ci moom nu mu gën a mate mu gën a mu mu gën koo yëg loolu moo tax muy jàpp suñu borom boole sax ñett yëpp ni ma waxoon waaw mujaddid dana boole ñett yëpp gis ngeen ne sëñ Tuubaa bind na lu bari ci xam la sharia gis ngeen ne itam amoon na yeneen façon yi enseignement yu bari bi mu ñëwee bi mu ñibbisee njaareem ba am jotu toog nga xam ne suñu boroom def na roo yi texe yëpp sopp ko sopp goo xam ne buñ ko gisee dootuñu ànd ak seen sago du mën a muñ ñu bari ba nga xam ne dafa mujj obligé wut ay kiiraay ay barrière ay sàkket xam ne palanteer lay ubbi moom lay recevoir nit ñi nga xam ne dañuy ràññ ñaar ñooy passé bu nuyoog ñaar ñooñu jàll ñooñu jàll ñeneen ñaar ñëw nit ñi raj raj loo xër ci moom di daanu ci koom di ko gaañ te duñ ko tey ngir xër ba mu toxal jàkk ji indi ko fi jege dëkkuwaayam dem ba wut yoon woo xam ne day jaar ci kiiraay yi duñ ko gis ba muy dugg sa jàkka ja bu duggee fi muy kàbbare taxaw nga xam ne kii grillage bu woyof bi rek mooy tax ñu di ko gis jóge ca nit ñi mayuñu ko jàmm teyuñu ko ba waxtu woo xam ne dafa bëgg di doxantu ñu wutal ko ci li wër kër gi yoon woo xam ne ci lay jaar barrière boobu dox digganteem ak nit ñi waaye du tee fu mu toll rek mbooloo mi am fi toll di ko xool di ko tokkamtiku waaye bépp waxtu woo xamee ne muy ci palanteer yi mu daawoon ubbi dem na ba nga xam ne dafa war a jàngale mu daal di ñu daal di soril nit ñi ñu dellu gannaaw mu daal di tàmbali tomb bi yooyu mu doon tomb ak rëdd yi ay xikam yoo xam ne sell sell maanaam daxu li nga xam ne mooy ñëw ci alquran ak hadis yu ndigal def yi moom lay dugal ci forme boo xam ne ni mu koy waxee day yomba takk te nit ki daf koy mën a jëriñoo day des ci xelam mu di leen ci waar di leen yee léeg-léeg mu dog ko dem bind xasida dellu si ñi nga xam ne la ko sëñ Amadou Lam Diop dagana waxe wala mu dem ci geneen wet goo xam ne ñeneen ñu def moo xam ay jigéen lañ wala ñeneen ñoo xam ne ñoom it aajo woo nañu loolu te diggan digganteem ak boromam suñu borom charté na ko loolu mu war a dem ñoom it jaaral leen ci yoon yee leen digal leen tere leen ñaanal leen dellu si nga xam ne waxtu woo xamee ne itam mu ngi toll ci di doxantu barrière bi dox digganteem ak nit ñi ñu topp ci moom léeg-léeg mu walbatiku digal leen tere leen wala mu jàngal leen wala mu ñaanal leen mu toll di tere alquran di tere waxtaan yi nga xam ne maanaam woy yi nga xam ne moom la tagg yonente bi sallallahu taala wa sallam allah moo doon moom waaw kon mu ni ne ci misaal tarbiya taalim bind na lim bind bàyyi fi ak lim tàmbale woon bi mu tolloo ci di jàngale tarqiya moom fu mu toll moom la mas di def gis nga tarqiya bi misaali taalim yooyu ma wax jàngalin yooyu mu tax ci tomb yi ak rëdd yi nga xam ne ay xikam la ci génne yoo xam ne day dajale njëriñi sharia ci jóge ci alquran ak hadis moom la daan tarqiya waaye kenn ku nekk tarqiya façon tarqiya ba mu lay def ni ma waxee ne médecin bi bu malade yi bari dajee ci moom kenn ku nekk mën nga wuute sa jàngoro mën na bokk ak sa borom waaye ngeen am yu ngeen wuute tax seenu faj wuute noonu itam daa tarqiya koo xam ne kii borom xaqiqa dëgg la façon nga tarxiya yu dul jeex la ko suñu borom di jox moom lay amee tarbiya bi itam xam ngeen ko ñi yóbbu ci daara yi di leen xiifloo di leen marloo nga mën nañ ne forme yooyu yëpp dajale ci moom naka noonu da nga gis koo xam ne ta seexu taalim rek la waxoon nañu charti seexu taalim moom na am xam-xam bu wér a wér bu leer boo xam ne day tegu ci alal kitaab bi wa sunnati maanaam alquran ak hadis na am lamiñ wu leer boo xam ne lu mu la wax doo ko nattable na am mandute goo xam ne itam ak farlu goo xam ne waxtu waa àggee ci lu mu xamul wala nga laaj ko bu xamee ka ko xam dana la ko tegtal te du ci rëy dana la demal diw nanga ma naka noonu seexu tarbiya bi nga xam ne gannaaw bu mu xamee xam-xam boobu ba noppi itam war na xam maanaam jamono ak xew-xewi jamono ak yëngu-yëngu jamono ak yàqu-yàqu jamono ak bu ci nekk fa mu jógee ak fa mu jëm ak na muy yàq ak na mu koy dékkoo ak nan lay aare nit ñi ak yan pratique lay digal nit ñi ba loola leen ñu mucc ca ak nan la ñuy jëfandikoo ba pour waxandiko yooyee xam itam yeneen xawaadis yi nga xam ne mu ngi aju ci biddiw yi asamaan yi biddiw bu war a fenk biddiw boo xam ne toll na ci saa sàngam la muy sos ci suuf mu xam ko ak na muy def ci taba yi tiba ay nit ñi maanaam ci seen i seen i tempérament seen i misage mu xam ko xam la cay jëriñ xam itam pratique yi nga xam ne moom la moo war moom la ñu war a ëppal ci seen i jaamu yàlla loolu yëpp mu xam ko bokk na ci charte cheikhu tarbiya cheikhu tarqiya moom waxtu woo ko gisee rek sa xel dem ci yàlla xam ne ak gisam rek daf lay fàttali yàlla toog ak moom daf lay daf lay xamal yàlla dafay lay fóot léeg-léeg di lay yëkkati ci di lay yéege ci yàlla bu xam ndax suñ wax na ci kii ne Muhammad ibn Wasi moomu am na ci mutasawifoon yoo xam ne buñ masaan jaamu yàlla ba sonn xam nga ne ruuhu doomu aadama day sonn yaramam day sonn bu ñu bëggee dàggiwaat seen bopp dañuy dem rek xool Muhammad ibn Wasi ci melawu ko yàlla bindee ak farlu gi dañuy daal di sawaraat ba jëfati ay weer yoo xam ne dañuy beesaat naka noonu kooku noonu la seexu tarqiya di mel dafa lay yéege ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam faw seexu tarqiya war na ko doon ci la mu kam lu mu mën a jubalee ñi topp ci moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ma soon wax bi nga xamee ne Hanzala dafa ñëw daje sidna Abubakar ci marché bi ne ko naafiq Hanzala moom mooy Hanzala mu ne man naafiq la man Hanzala sidna Abubakar ne ko lu tax nga wax ko mu ne ko dama gis bu ma toogee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam day mel ne maa ngi jànloog àjjana ak safara arrêté course yooyu yëpp waaye bu ma ñëwee ci marché bi di jaay ak jënd wala ma dem ci kër ga di wax jigéen ñi xale yi di toppatoo mbiri adduna bi damay daal di mel neneen yonent bi Seydina Abubakar waxu ko dara daf ne ko ñëwoon dem wamat ko ba ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko toogal mu toog mu ne ko waxal li nga waxoon bu mu ko nettalee yonent bi daf ne ko sallallahu alayhi wasallam ni nga xam ne noonu ngeen di mel bu ngeen toogee fi man bu ngeen ko mënoon a wéyee kon malaayika yi day saafonte ak yéen naka noonu it ñi ko ci appliqué malaayika yi xam ngeen ko ne Imran ibn Husayn malaayika yi dañ daan saafonte ak moom muy gis mu di leen gis di dégg li ñuy wax ba benn bi nga xamee ne am na taab bu ko daal mu metti mu dem gàjju bi mu gàjjoo nag nga xam ne dafa mel ne que bàyyi na wakilu bi wàññiku na ndax gis na ne garab gi dana ko faj gisatul malaaka mu daal di koy réccu xam ne looloo ko yóbbe bi mu delloo ba def kaafaara goo xam ne tax na loola dañ mu delluwaat di giseet malaayika yi kon nga xam ne cheikhu tarbiya mën na boole tarbiya ak tarqiya ak tasfiya yëpp mën na ko boole mën na nekk itam cheikhu taalim rek mën na nekk cheikhu tarbiya ak tarqiya te du nekk cheikhu taalim mën na nekk itam cheikhu tarqiya rek te du nekk lii lépp bu ci nekk bu dul woon ak bañ mu gudd ci ta à travers maanaam ci ta am na taarix yi daan wan daan la wan ay bu ci nekk ay asharaat ci ñi nga xam ne cheikh tarqiya rek la ñu tëdduñu tarbiya ak ñoo xam ne tarbiya rek la ñu ak tarqiya ak ñi nga xam ne boole nañu yëpp ak ñi nga xam ne weesu nañu ñaar yëpp tarbiya bi ci sëñ bi indi ndax am nañu ko ci biir am nañu ko doon doxal ci biir fa xam naa ne sàmm naa de ah ban heure jot léegi deux heures dem xam nga laaj man mënu ma gàttal damay kii rek te laaj yu bari ne waaw la yëpp ndax mënu ma jéggal ndax mënu ma jéggal man de ñu ni mais sëñ bi ne dafa sonn ngi maa ngi nii de ndax man ngeen ko boo xam ne yàlla rek a tax ak yonent bi ak sëñ bi yàlla na ko suñu borom def muy lu jëf ju sell ngir jëmmam rek yàlla na ko suñu borom boole ci jotaay yi ëpp njëriñ yu gën a barkeel yu gën a bégal suñu borom ak yonent bi ak sëriñ bi te suñu borom may ñu ñëpp wér gi yaram def may ñu fan yu guddi ci lislaam képp ku fi indi woon bàkkaar suñu borom baal ko ko ku fi indi woon tawat suñu borom saafara ko ku fi indi woon aajo suñu borom faj aajo jooju asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu
ma jóg man de fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuuba ko xam yàlla gëm yónneen liggéeyal Sëriñ Tuuba ma jóg man de fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuuba ko xam yàlla gëm yónneen liggéeyal Sëriñ Tuuba